fekk nga ku ñuy wax sa Diop def première partie waxtaan ci jigéen ak ittee rekk ak taxawaayam waxtaan wu mucc ayib wu rafet xam-xam bu yaatu bu jekk man dama doon bayaat rekk ci lim waxoon waaye moo doon conférence yi ñu wax ni danga ñëw nga fekk fi nag sa mbokk doomu Serigne Abdul Aziz Al Amin mu ngi nii toog di soxna maam faama si tàccu ko moo nekk nii toog baayam yar ñu jàngal ñu toqi ñu lu nu mel Serigne Abdul Aziz la ku nu fonk Serigne Abdoo tax fu nu yegg Serigne Abdou la amuñu kudul moom kii mooy sunu ndey Serigne Modou Kara sa micro ngoog mbooloo maa ba beneen yoon. ah sëñ Modou. Iran de daa wax ba pare ni mër xaw fu mu jaar. ah lu muy taxaw foofu bi mu waxee ba pare dafa war ni rii dafa war a riigu ndax itam loolu mooy civilisation. man maa ñëw gis ko mu nekk la conférencier du jour ma dox ba fële jox ko loxo nuyu ko loolu mooy élégance ab ndaween la del am ndaween la del waaw del waa mooy la del 4 la waaw 6 la 10 moins 0 égale 1 allahu waahid mën ay nit yi àjjana kon ma ñëw bu fekkee ay nit yi àjjana lañu te Sëriñ Tuubaa nee nu waxu muri ilal jinaane aydu <laughs> Eh, faw nu jëm a xam ki no amay kan ki am mooy kan teewul ñi nekk fi waaye il est de dessus de tous les envoyés moom Serigne Touba rafaatu tawhidi li rabbil alamin wa xudtu am daahi li ahmad al moo def lu kenn deful defalal yonent bi lu ko kenn defalul yonent bi ne ko cas yóbbu ko fu mu yóbbuwul kenn mu féete kaw ñépp ma ñëw faw ñu nangu loolu tey dellu ci démb ca buro ba fa Ndar 84 marabu ñu rey ñett mu des 81 ñu tiital quatre 80 ñu signé la tubaab bi bëggoon moom kepp rekk dong kot mu refusé signature ba looloo ko yóbbu woon faaw ñuy delloo sa xel loolu gis nga bu mbir yi yéexee ci noonu la bu ñu nangoo ne moo jiitu rek kuy topp topp ca parce que moo def lu kenn deful moo def lu kenn deful dafa leer fii la ngàmmaaral nag ay naara ki chinois ki japonais ñëw di ñu wax mooy kan foofu lañ jëm te ba ma tàmbali sama liggéey li ma leen wax di ngeen ci xam dara wa salaam